والجنان إلى كالكلي فيدا يري نفس والمهنى خادم الذي أسنى بما يسره الأذهان قد فجاء بجاه أبدال من لله قد لجاء ربي بما يسره أزغان ما فجاء بجاه أبدال من لله قد جاء ربي بما يزرعون أزغان ما فجاء بجاه أبدال من لله قد جاء حمدي لرب كريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتها ملا محمد صلوات الله في أباد عليه في أدعو إله الذي همت مواهبه لجملة الخلق ما يهتار من برا ناجيته جل ومن وكرماني تكريمها بالوكل من لمن بريئا لجميع الخلق رحمة من يغني حنيسا لمن قرآنه خرا هد أمة المصطفى عن كل مفسدات والترحم منها الخيا من جادهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواب ارحم جميع الورى يا هاديا ردا ما حوت ما خانها قل قلب من درار بجاه آه والخلق من درار بجاه أبدال من لله قد جاء صنع إلهي بالمناجهات وأبدا أغيد أغاتي صنع إلهي أبدا أما يدي أم خاتي ربي الله بالبنا جهاتي وأبدا أما يدي أم خاتي دل علي الخل لا ما أولياء ما لا يزال وجه الأولياء حسيدتي فقد غزا إلى الكرام وليد قندم بن غير مرام هديتي مغني لا تنقل المليد كان المنادي جوز المليد ما تواجه النظر الله ليا بلا إله إلا الله ما تواجه النظر الله ليا بلا إله إلا الله ما تواجه koo xam ne sëriñ bi daf ko war a tuubal mooy lislaam dafay am am gan tey ci bis bi di bisub sëriñ Sidi Mbàkke di bisub waa campement Ndangaan ak li ko wër yépp waaye ginnaaw bala ñoo def loolu ginnaaw bu nu nuyoo kilifa yi fi teew yëpp sëriñ Sidi teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxol kilifa yi fi teew yëpp suñ àggee ci cérémonie officielle bi dinañ leen lim ñu ngi ziyaara ñëpp di jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp di ñaanal ñëpp tànk yu ñaw yi ak tànk dellu yàlla na yi tiyaaba ci barkeb sëñ Tuubaa euh, ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee woon xay na duñ ko amee noonu ndax temps bi dafa gàtt waaye fi ñuy tàmbaree rek mooy dañuy jox ki nga xam ne mooy imam cheikh Mourtada Amar mu ubbi jataay bi ci ñaan su ko defee sëriñ Sidi Mbàkke Ixlaas dal di tuubal ki nga xam ne moo war tuub suñ te noppee ñu continuer programme bi kon noonu rek lañ ko tëralee ci kàttanu audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ginnaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq te di leen baal àq tey ñaan subhaanahu wa lii ñu fi dajale yàlla nañ ko tàmbale ci bismillahi rrahmani rrahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp lu ñu ñaan sunu borom defal nu ko ñoo ngi nuyu autorité yi ñoo ngi nuyu sëriñ si ñoo ngi nuyu gan ñi ñoo ngi nuyu waa campement sant nañ yàlla bu baax nag subhanahu wa taala bam ñu mayee kàttan ba mu fekkee ko ñu ngi ñaan yàlla nañ ko yàgg a fekke mbooloo mépp yàlla nañ ko yàgg a fekke te kenn bañ a manqué te li ñu ñaan sunu borom defal na ko ah sant nañ bu baax de ndax day sëriñ bi day muy sëriñ Sidi Mbàkke jàpp naa ne la ko maamam ju baax ja digaloon day fa maamam ju baax ja jaaroon dey jàpp naa ne fa la jaar te mooy jéem a jubbanti ndaw yi la sunu boroom waxoon ne qu anfusakum wa ahlikum naar na ngeen fekk seen bopp na ngeen fegal seen bopp sawara fegal ko seenu njaboot yaakaar naa ne loola ku gis lii loola ci la ndax mu ngi liggéey di tàmbalee ci xale yi yombul nag diis na gudd na waaye lépp li koy mottali mooy ngëm-ngëm rek moo koy mott li yal na ko sunu boroom may kattan yal na ko sunu boroom may fanwu gudd yal na ko sunu boroom may ak wér ba li mu bëgg àggale mu àggale ko ñaan gi nag yaakaar naa am na ñoo xam ne ñooñu ko gën a yayoo te mooy la sëriñ Tuubaa waxoon maama muy yonente bi sallallahu alayhi wa ne ko wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan zahara wal mislu xattu lam yura walan yura yaakaar naa ñooñu jox leen ñu ñaan ñoo gën a yayoo ñaan gi muy sët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dey jàpp naa ne lu ñu wax lu nekk lu ñu ñaan lu nekk suñu borom nungu ko kon nag ñu jox leen xëy na waxtu wi gàtt na lool ñu jox leen ñu ñaan teelu ñu ñaan tijji ñu commencé programme bi bismillah sharif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 allahu akbar yàlla bala ko bismillahi rahmaani rahim uh, dañuy waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah waxal ci kaw وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf mbokki jullit yi fi teew ak mbokki taalibe yëpp ñëw teralal ma ko tuddee naa ko Cheikh Mouhamadul Fadal kuy dégg rajo bi ak ñi ko fekkee ñëpp suñu borom jéggal na leen seen bàkkaar yu njëkk ak seen bàkkaar yu mujj moom mi nga xam ne moo tuub bi mu tuubee tey lépp lu mos a def suñu borom jéggal na ko. amiin amiin rek sëñ Fallé amiin amiin barke sëñ Fallé barke Serigne Bada. la barke Serigne Sidi Mbacke Niass. la.